gudd ak wér di nuyu tamit Jama Mangaan ak Fatou Congaan na nga ca Champs sur Marne Paris Aïssatou Ndom ak euh, Aïssatou Ndom et toute sa famille ñu koy nuyu ca Saint Saint-Thibault di nuyu tamit Penda Sila ak Ibrahima Mangaan ca Palso ak Rocky Ndom ca Noisy-le-Sec ñu ngi am mbégte contentement bu mag ci tamit euh, ñoom Ndey Penda Fati ak Momo Gassama euh, Champs sur Marne Paris ñoom Ami Diouf Abdoulaye Fall a Torcy Nafisatou Thiombane Doudou Diallo nekk ca Jidde Alaaji Doudou Diallo ziar nañ ko ak El Hadji demoiselle ñun daal pare nañ nekk ñu am mbégte contentement bu mag El Hadj Ibrahima Ba taalibe Serigne Moustapha Sy Jamil nekk aussi président wu union Yaraax euh, ñu koy nuyu ak soxna Aïda si yaayu Jamil Ba depuis Fass cité Aliou Sow nuyu nañ ko di nuyu tamit bu baax Pape Samba Thiam ak soxnaam Aïda Thiam madame Aïda Ndiaye madame Thiam ak bébé euh, Yacine Ange Thiam ki fêtait son anniversaire hier te yaakaar naa ne nag neex na ndax xam naa ne papa ji expert la en poulet te bu nekkee expert en poulet doom ja war na nekk nag expert en euh, sauce ñu koy nuyu bu baax toute la famille Badiane ñoom Malou Koli à ma maman chérie Marie-Paul Malou et ma fille Mireille Mendy sa jumelle Ndeye Soukey Gueye toutes ses amies Mounas Ndeye Mbaye May Diop mam Diarra ñoom ñëpp ñu am mbégte contentement di seetaan seen émission Kouthia Show ñuy def nag moom mooy dem seeti Alain Giresse waaye avant Alain Giresse ne TFM day joxe chaque jour cent mille francs da nga koy envoyé ci SMS choc 24 500 war nga woote ci 88 628 65 65 wala 88 628 14 14 pour mën a jot cent mille francs yi bés loolu neexal la boo xam ne ci làmb ji la mais cent mille francs yi <laughs> waaye mille francs yi waaye francs yi mais cent mille francs mais yow daal yow vraiment suma waay nga yow daal ku baax nga yow daal yow man daal man vraiment man man des fois dama lay namm way waaye sama waa naa la ko de du ay caaxaan de yow su ma amee doom bu góor xaalis laa ko tuddee waaw xaalis laa ko tuddee ak koo mënti rek xaalis laa ko tuddee yow sama xaalis nga su ma war a nga ma teg la fii yow kenn waru laa wane dañ laa war a sutural léegi nag Alain Giresse amati na contrat ba mu jaaree Burkina Faso une semaine la fa def journaliste yi posé ko ay question mu munu cee tontu mu gedd daal delluwaat na Mali bi nga xam ne fa la jógee woon ñu seeti ko rek moom ak président fédération bu Mali conférence de presse bu mag la def ca biir euh, Bamako ak télévision Africable ak télévision RTM rajo télévision bu Mali moom Alain Giresse jàkkaarloo président Iba Kanouté bi nga xam ne mooy yor président chef maaleykum salaam. bonjour. bonjour les journalistes bonjour. monsieur Siras. oui oui. vous bien. je pas de problème où sont les chaises. non tu peux asseoir ici. tu peux asseoir tu tu peux asseoir ici. tu mm. oh, tu es le président tu moi je suis. d'accord. bon. Maintenant, on va signer une contrat. Une contrat qui va durer 5 ans. Mais avec des conditions. Oui. Avant tout Oui. Chaque match de football. Chaque marché de football. Chaque match de si tu gagnes, on te paie. Si je gagne chaque match, vous me payez. On te na am saka a prime. Et prime encore. Mun na am prime. Vraiment, vous êtes euh, un bon président de fédération. Même dégg na sa parcours. Oui. Dégg na sa parcours. yow jaral nga Sénégal yow jaral nga jaral nga Burkina hmm. yow jaral nga Qatar ci réew arab yow nga ñëw fii Guinée Mali amulo problème boo gagné dañu la jokk prime ñu la fay ñu jokk la prime. si je gagne vous payez. match nul. benn yoon. vous payez pas. di ñu fay xaaj. la moitié ñu jokk la moitié. c'est bon je on te paye pas. de fait vous payez pas match nul. match nul on paye la moitié mais de fait. victoire vous payez la prime. victoire on fay ñu jox prime. D'accord, euh, J'accepte parce que vous savez, je veux prouver aux Sénégalais qu'ils ont des mauvais joueurs mais pas un mauvais entraîneur. Ah, C'est pour ça j'ai accepté mais il y a beaucoup de pays qui me suivent pour que je signe. Même mm -hmm. même en train de négocier pour que je vienne ah gérer. Ah Chelsea ils m'ont ils m'ont appelé Chelsea. ah Chelsea. tu vois. tu vois. le président de Chelsea. il m'a appelé. ça c'est numéro ça c'est numéro Chelsea ça. Euh, euh, euh le, euh, le président de de Chelsea. Ah, de Metz. D'accord. Marseille mais Marseille il veut que je vienne mais je dis que après c'est plus bon. mais c'est plus bon tu veux tu veux prouver ton ton compétence. oui oui da nga bëgg a prouver léegi on va essayer de donner aux journalistes de parler pour voir. il y a conférence de presse. allez vous êtes les journalistes vous pouvez parler. Bonjour, monsieur Giresse. Je vous entends pas venir là jusqu'au micro. Bonjour, monsieur Giresse. Oui, bonjour. C'est François Bijost de Nigérian TV. Nigérian TV ah, Jean dañu bëggoon laaj exactement ba xam équipe bu Mali bi nga war a coacher ba xam est-ce que ni nga doon def ak journaliste. en en français. la façon dont vous traitez les journalistes sénégalais est-ce que vous comptez traiter comme ça les journalistes. du Mali. C'est une très, très que vous aviez tout le temps des problèmes avec les journalistes sénégalais. Est-ce que ça va se passer comme ça ou bien vous allez changer de méthode? Les journalistes sénégalais, c'est des journalistes euh, euh, seytaanés. Journalistes qui qui journaliers. C'est pas des journalistes de formation. Ils comme Serek, genre euh,

Ah pourquoi ça Non, je ne réponds le Sénégal. Journaliste Sénégal, qu'est-ce qu'il fait Mali Pourquoi il, il Mais il faut le travail. Il faut le travail. Il faut le parler pour Le journal de sport. D'accord. Je, que, euh, il n'est même pas capable de qualifier l'équipe nationale. Waxoo dégg waxoo la Guinée. Euh, si tani nga donc écrit oui ah bon tout dara eh monsieur Jerez ne se le ne se le vous rappelez de la Mali oui oui je veux vous xamuloo dara monsieur Jerez so monsieur Jerez parce que xamoon naa ne yaa ngi fi ba léegi pour man ñibbi nga sa dëkk ba yàgg monsieur Jerez et parle wolof je comprends wolof et dis que man xawma dara je yow yow yaa xamul dara sa kanam bu ndaw il faut le laisser développer il faut toi aussi je vous le laisser développer allez allez-y parce que ku mënul qualifier Burkina Faso waxtuma laak euh, Sénégal ngay dem di engagé wu Mali. fu ma ñibbi nga bu yàgg nekk yaa ngi fi ba léegi. ah Jérés yow de nga Afrique. mais bi ma ñàkk suma ndi ma ñàkk suma béy ma ñàkk ñëpp waxul dëgg xamul dara Sénégal ñoo ma topp elle elle pas journaliste. ah monsieur Jérés franchement. franchement je suis vraiment désolé aidez moi aidez-moi aidez-moi je vais vous prouver. c'est moi qui va vous payer pour. vous moi j'ai pas pas compris comment peut un compétent. peut vous dire aidez-moi. question merci monsieur le journaliste sénégalais merci de m'avoir mis dans de très bonne voie. Euh. ah monsieur le journaliste je suis vraiment désolé mais. Bonjour, on va monsieur Alain Giresse. Oui, bonjour. Oui. C'est Mafatoulaye de la TFM. Ah oui, d'accord, d'accord, Mafatoulaye. Monsieur Alain Giresse, est-ce que réellement c'est toi monsieur Alain Giresse? Oui, c'est moi. C'est toi? Oui. Ok, j'ai entendu dire que tu, maintenant vous êtes euh, euh, sur, l'équipe malien. Oui. monsieur Gérard, mm. autant pour moi, mm. tu pas capable de qualifier l'équipe sénégalaise et un petit engagement sur l'équipe malienne. oh Fra oh. ñu ngi may tooñ. ñu ngi may tooñ. c'est pas une question de tooñ. non c'est sama yaay. journaliste sénégalais. on va pas vous laisser faire. Ndeye Fatou Ndoye seytaane nga. Ndeye Fatou Ndoye. ok on est là pour nous défendre. demee nii xam xam. ah j'annule le contrat. j'annule le contrat. non non non. ñàkk semaine day jox ko arrêté. te ñu may jëtu di ma jëtu. comment tu sais Thiatou en haut. on va essayer de on va on va avoir la parce que ce que j'ai entendu là ça me ça me fait pas ça me fait pas. ça me fait pas tu comprends pas wolof je dis que dañu ma Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou bi lay dañu ma Thiatou. oui dañu ma Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou Thiatou mais mais mais dañu ma Thiatou. yeneen cetu dañu ma cetu cetu cetu cetu baba ma ko mi yeneen a jatu jatu jatu jatu jatu jatu jatu jatu jatu a jara na jatu iba duruxu iba duruxu iba duruxu duruxu duruxu duruxu duruxu duruxu duruxu iba duruxu eh buruxu baraxa buruxu baraxa buruxu baraxa e kena na buruxu i dañu ma cetu cetu cetu cetu cetu cetu cetu cetu cetu cetu lay dañu ma ca toog signal dañu màccatu. non non non. signal dañu màccatu. non non non day signal dañu màccatu. amul eh dañu màccatu. dañu màccatu. dañu màccatu. dañu màccatu. on va